maa ngi tudd Timothée Coly euh, te maa nekk coordonnateur national de l'amicale des travailleurs de l'électricité donc euh, amicale des travailleurs de l'électricité dafa nekk benn kuréel boo xamante ne ni moom moo ëmb prestataires yi nga xamante ni ñoo existé nekk ci biir Sénégal gi donc tey jii nii euh, comme ni ñu ko defe woon la semaine passée ñëwoon nañ fii ci Dakar alerté l'opinion nationale ak internationale sur vraiment bi nga xamante ne ni prestataires yi nga xamante ñoo nekk ci biir Sénégal ñu koy dund mu nekk ay dund boo xamante ni dafa métti lool ak manifestation yi fi jot a passé marche yi daf nañ marche Dakar daf nañ marche Ziguinchor daf nañ marche Kaolack ba mu am fu sax ay xëcco entre force de l'ordre ak amicale de travail de l'électricité ak lépp loo xamante ni jot na fay jaar rek mais direction générale Sénélec ak chef de l'État Macky Sall kenn nangu si jël benn responsabilité Pape Demba bi tey bi mu ñëwee Kaolack ci jamono boobu il a été interpellé par les journalistes li mu joxe comme argument moo nekk ne Sénélec tëj na ay buntam ñooñu bu ñu bëggee waxtaan nañ ñëw ñu mën a toog autour d'une table daal di donc ñun xam nañ ne bépp revendication bu mën a gis autour d'une table lay réglé woo mun nañu tijji ne ay buntam ñun nag ba ñuy xoolee toogaat avec le bureau national benn situation rek nañ gis boo xamante nii moo ñu waroon jubale ci moom moo nekkoon bind benn lettre demande d'audience lettre demande d'audience boobu noonu résoudre nañ dañ ko bind biñ ko bindee ba pare ñu ngi ko envoyé euh, au niveau de la direction générale le 29 juin 2021 imaginez nga déposé lettre d'audience depuis le 29 juin 2021 ba actuellement fu ma yeexoo ak def nag déjà quatre mois sans réaction donc ñun nag vraiment ñu gis ne lu ëpp dafay tuuru te luy raam nag si ñàkk bi la jëm ñun nag ay jeune nañ ay sénégalais nañ bokk ci réew mi gëm suñu bopp la ñu bëgg tey moo nekk injustice ba nga xamante ni moom la ñuy tudd vraiment ci biir Sénégal bi imaginel tey nous sommes au nombre de quatre cent quatre-vingt-dix-neuf a néew la at ci li mu totalisé au niveau de ans imagine toi Sénélec di la exploité pendant cinq ans pendant dix ans pendant quinze ans vingt ans vingt cinq ans ak coono boobu noonu yëpp terewul yaa ngi muñ rek ba pare ñu teg la ay affaires yoo xam ne moo gën a métti mooy fin du mois bi quand tu es prestataire chaque fin du mois da am problème lu loyer parce que xaalis bi du ñëw chaque fin mois wax naa ko sànq su may wax nee naa leen Senelec lu muy liggéeyaloo prestataires yi moo nekk anam boo xamante ni jàdduwul imaginel nga nekk soutien de famille wala nga nekk père wala nga nekk mère de famille jël sa ko Senelec chaque jour ngay xëy di ña nga nekkal yaakaar yaa ngi ci dara alors que nekkoo ci dara koo xamante dafay toog ay 4 mois 5 mois kenn du la fay ba ni may wax ak am na ñoo xamante ni ils ont des problèmes de salaire et pourtant école tijji ñu war a mën a dugal seen i doom école mais amuñ sax xaaj boo xamante ni war nañ mën a dugal seen i doom école te injustice bi nga xamante ni vraiment la ñuy dund Senelec dafa nekk injustice boo xamante dafa jéggi te ñun nag ay jeunes nañ ay sénégalais nañ fu toll nii dañuy dañuy comme si que nous étions te Macky Sall ba leen xoolee ci fan yële passé ci mois de mars bi génnoon na fi di wax naan non je vous ai compris waa promettre na 65 emplois mais imagine 499 personnes Macky Sall promettre na 65 000 emplois mais 499 personnes yooyu noonu tey pour ñu régulariser leen du dara ndax ils sont déjà employables ils connaissent déjà euh, le système ñu ngi ci yàgg ci maîtriser ko def te boo xoolee boo xool prestataires yi ñooy relever ñooy couper ñooy présenter nekk ci réseau électrique bi ñoo nekk dans les centrales pourquoi à chaque instant bu conseil d' administration Senelec élaboré ne par exemple Senelec en cette année nangami personne la war a jël chaque jour bu conseil d' administration loolu rek nga gis ñu ku nekk jóg cadre yi jóg directeur général jóg indi seen i mbokk daal di dugal ña nga xamante ni ñoo maîtriser liggéey bi xam ko ñu jël leen tegee leen dalee donc loolu dafa nekk loo xamante ni daf ñoo naqari naqar googu noonu tey moo ñu indi fii dakaar te waxoon nañ ko newoon nañ ne Senelec su fekkee réagirul d'ici vendredi bi passé ñun incha allah amical yëpp dinañ déplacé wu tey boo leen xoolee euh, nit ñi jóge nañ fu nekk jóge nañ Tambacounda jóge nañ Kaolack jóge nañ Ziguinchor jóge nañ Kolda jóge nañ Vélingara jóge nañ Saint-Louis en tout cas bépp localité boo xamante ni nekk na ci biir réew mi rek jóge nañ fa bépp ndaw bu xamante ni Senelec lay liggéey te bokk ci amical bi teew nga fii tey ngir wane sa naqar sénégalais yi mën a xam ne vraiment li ñuy dund injustice la lenn rek lañ bëgg te mooy tax vraiment ñu arrêté suñu komba mooy am gain de cause sans gain de fii la ñuy tëdd luñ ci góobee lu rek gar nañ fi ay médiateurs yi nga boobu noonu dañ soro tontu parce que euh, dama lay jox damay retourner tout en arrière parce que le directeur général en 2020 on a eu à le rencontrer plusieurs fois quoi rencontré nañ ko ay cinq fois donc il nous avait promis que ni que année jël balaa fin 2020 ñoom yaakaar ne xëj na day soog a toog dañ ko may temps mais à notre grande surprise man le 29 décembre ci la ma directeur o en personne ci la ma o en personne ne ma Coly ma ko waaw mu ne ma pour cette année deux mille vingt trois personnes laa mën a jël mais imaginez toi trois personnes ci quatre cent quatre-vingt-dix-neuf personnes nan laa ko mën a séddalee ma ko lii du ci dal ci naka noonu nag ci lañ commencé nag xam na ne ñii nekkul ñoo xamante ni da nga leen di may dara déposé waat nañ suñu demande d'audience amul réaction bañ ñëwee Dakar def marche ministre de l'énergie ci boobam woo nañu ñu dem foofu tase ak moom building administratif toog ak moom moom mu jël engagement ne dina fexe tout ba régler problème bi ñu ngi déggoo téléphone ñu ngi waxtaan mais saa bu ñuy waxtaan damay wax ne chaque jour mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mais amul lenn loo xamante ni lu concret lu mu mën a tegal sur table donc nag lu ëpp nag dafay sànq naa ko sànq ñun nag dañoo jël suñu avenir en main dañoo jël suñu avenir en moo tax tey ñu ñëw fii Dakar en tout cas de façon lu ma lay mën a wax moo nekk de jigéen suñu avenir jaral nañu sax tëdd fii dee bu ñu dee fi sax ñu dee en martyr moo ñu gënal di dee ci affaire prestation de service yoo xamante ni vivre dans la galère la prestation de service nekk loo xamante ni sa waa koñ ñu nga dëkkal yaakaar ne nga yaa nga àdduna ci biir amoo dara chaque jour yaa ngi ci ay problème di daw di génn di daw di génn loolu nag moo fi jeex ñun suñu dañoo engagé wu fu mu toll nii déterminé wu jox suñu dund ci la nga xamante ni vraiment loolu lañ bëgg la ñu bëgg mooy la régularisation de tous ces quatre cent quatre-vingt-dix-neuf prestataires te fii tey lépp loo xamante ni dina fi am muy feebar juddoo fi muy nit dee fi faatu fi sax lañ xam ne le président Macky Sall moom mooy responsable parce que président Macky Sall moom mooy le président de tous les Sénégalais parce que c'est l'homme le plus informé problème bi xam na ko pour mu régler ko en une de seconde dara ci moom mais dañuy bàyyi ba wéy yëy ba bëy yëy mbuus nag ñuy dogoo fekk foofu naan dañuy jéem a sauver te loolu nag duñ ko nangu ñun en tout cas de toute façon déterminé nañ engagé wu nañ ci la nga xamante ni moom lañ dëgmal muy suñ grève de la faim bi te duñ bàyyi mukk tant que leer mooy tax ñu jóge fii delluwaat suñu kër yi saa wala euh, xam nga dans le dans le cas de woyofal woyofal dafa nekk loo xamante ne ni euh, depuis au temps de Matar Cissé la woyofal c'était au temps de Matar Cissé mais la Sénélec dafa bëggoon jël ñëpp rek jël leen ñi nga xam ne dañoo amoon contrefacture yóbbu leen woyofal mais malheureusement enquête boobu doxut quoi politique boobu doxut woyofal dafa yokku liggéey parce que woyofal moo ëpp liggéey sax que contrôle bu ñuy relever ndax woyofal mun nga teg contrôle woyofal mais su amul contrôle dara du sotti sàccum bëri ci dëkk bi donc woyofal sax moo ëpp liggéey que compteur bi nga xamante ne dañ koy relever parce que compteur relevé da ngay ñëw relever dem sa yoon ko mais lii nii woyofal mun naa ne moo ëpp liggéey que yi nga xamante ni dañ koy relever donc nag politique bi nga xamante ni moom la ñu doon génnee day échec du loolu li fi nekk moo nekk ne 499 prestataires yi dañoo yeyoo ñu jël leen ci biir Senelec parce que seen place ngi foofu waaw comme que tey nag vraiment taxawoon nañ temm ne duñ fi jógee tant que amuñu ñu bëgg kon jàppee lañ ko noonu et chaque jour boo leen xëyee yéen journalistes yi di fekk fi ñu toog boo leen ñu fi gisatul rek jàppale na am na suñu genn cause te lépp loo xamante ni waxtaana nañ ko ak état bi waxtaan nañ ko ak kilifa bi lépp lu ci mën a am lu nekk Sénégal yëpp dinañ ko yëg xam ne amicale de travail de l'électricité soit day jubóog ak direction générale soit day ñàkk jubóog ak direction générale en tout cas lépp lu ci mën a nekk rek vous serez informé de euh, de la donc du coup y a des syndicalistes qui sont en train d'appeler de gauche à droite pour rek vraiment euh, jéem a négocier par rapport ak situation parce que ñëpp xam nañ ne lii du image bu rafet ci Sénégal ay ndaw jógee fu nekk image bi ay père de famille ay mère de famille si ngeen jigéen ay mère de famille bàyyi seen i doom seen i kër ay père de famille bàyyi seen i jabar ak seen i doom ñëw fii tey dakaar mais imagine toi léegi ñëw ñun tey ñëw nañ fii mais naka la seen famille di dundee mais li fa métti donc nag looloo tax ñun ñu ne balaa ñuy éterniser dans une entreprise tout temps prestataire bàyyi ñëw jaayante ko fii su fekkente ne réagir ñun duñ fi jóge su fi amee nit ku faatu nit ku feebar président de la république Macky Sall sera tenu de waaw mooy mooy mooy mooy responsable lépp en tout cas de toute façon.